e ñu ñëwaat encore ci mu turu mouvement socialu bu njaareem defar njaareem ñëwaat fii defaat benn sorti encore ci hôpitalu njaareem dixième neuvième sortie loolu yàgg na eh, tey di ci dimanche ñaar fukki fan ak ñaar eh, ci weeru mai ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar donc ñu ànd fi ak sëñ xaaban Guèye ak équipe am ak ñëpp ñëw fii ci hôpital Industrie Lutké de Diourbel ma teew fii ci turu chef de service social ci turu service social turu directeur ak personnel bi di leen di dalal di leen di ziar di leen di ñaanal encore une fois yàlla suñu borom jàppale leen yàlla suñu borom yokk seen mën ndax li ñuy def nii xeebuñu ko même su fekkoon ne benn 15 la ñu ñëw fii jox ko benn malaat raay boppam ma masawu ko sax loolu am na solo rawatina muy teraanga joo xam ne e ñoom ñoo koy indi. ci loo xam ne ay jaamu yàlla ñoom ñoo koy dajale indi ko ngir jàppale malade nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw kon loolu dañ leen ci gërëm di leen di sant encore une fois et cu turu hôpital bi ci turu directeur bi ci ginnaaw suñu ñaanalee mouvement bi ñu ngi encore di ñaax doomu njaareem dinañ xamal ne ñii li ñuy nekk tool yi ñu nekk di ci béy ah ñëpp ci war a béy ñun ñëpp ci war a jàpp kon nañu fexe incha allah fekk leen ci tool bi mbir mi gën a yaatu xam ne liñ fiy dajale ci ay teraanga xej na fi ndax problème bi tar na jafe-jafe yi bari na hôpital su sañoon malaat bu fi ñëw lépp yemb hôpital jox la ko muy garab muy analyse muy lépp mais nag jamono changé am na loo xam ne tey hôpital bi même su ko yéenee mënu ko ah ndax ay su jàmbur lay liggéey garab yi ñu ko malaat bi su ñëwee am na loo xam ne il faut mu contribuer ci ci mbiru garab te xam ñu jamono neexul malade yu bari tey jafe-jafe añ ak ak ndekki sax problème la ci ñoom kon koo ci jox ordonnance dana am jafe-jafe kon waa mouvement social su ñëwee tey di jaamu yàlla ci loolu ah dañ leen di gërëm di leen di sant di leen ñaanal encore une fois en tout cas gudd na gàtt na baatu cant la baatu ñaan la eh, ñu ngi leen di gërëm di leen di sant di ñaax bopp doomu njaareem bu ne ci biir ak ci biti ah nga jàppale mouvement social bi xam ne lépp loo xam ne ñoom ay lantinoor lañ lu ngeen ci joxe rek incha allah yegg si na fii kon nag loolu ñu ngi leen ci jërëfe di leen di ñaax encore une fois jërë ngeen jëf merci. asalaamaaleykum mbokki njaareem association ànd taxaw askanu njaareem ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare yéen ñëpp di jiital ci nuyoo bi nag fi nga xam ni tey jii fii la nekk muy hôpital Henri Locquet bu Diourbel di nuyu ki nga xam ni mooy directeur Bokar Sow mi nga xam ne moo jiite hôpital bi di si teg sunu frère bi euh, euh, monsieur Samb nga xam ni ban commencé liggéey bi ba léegi moom la directeur bi booleel boobu ba léegi tamit moom mi ngi taxawaay taxawaayu ndigal li nga xam ne directeur bi moom la ko sant tey jii mooy suñ dix-neuvième sortie fukki sortie ak juróom-ñeent mu tombeeg le vingt de mais 22 mai 2022 chaque jour Samb mi mi ngi ànd ak ñun fi mu ne nii liggéeyu tey sax waaye fu ñu ko wooyee su doon nekk ba kees it day ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi kon noo ngi jël nuyoo bi di ko teg seen loxo ngeen nuyul nu képp koo xam ne mu ngi ci biir hôpital fi liggéeyee su loolu weesoo noo ngi nuyu association Ande taxaw Njaareem bii nga xam ne nii noo ngi ko formé ca marché Ndoumbé di sant membre yi nga xam ne nii ñoom tamit noo ngi fii ci Njaareem chaque fin du mois rek bala noo am jàmm seen xel mi day dem ci social bi ndax lu am solo la ku si nekk rek da ngay jël sa dërëm fu commission bi jógee rek fu mu munti taxaw ci marché da ngay jël la nga am ak la nga amul def ko ci pour jàppale maladie di sant tamit ñi nga xam ne équipe bi nga xam ne tamit moom leen àndal ku mel ne imaam Cheikh Diagne mi nga xam ne mooy trésorier bi ak Babacar Seck Diop nga xam ni mooy président commission finance bi ànd ak sunu frère Djili Fall mi nga xam ne tamit moom membre la ci association bi waaw di sant bu baax tamit waa diaspora bi ñoom tamit kenn demul nu des ndax man commencé ba léegi nii waa Turquie ñoom bàyyi mur mbu waa Espagne waa Amérique waa Italie fu waay munti ne rek su fi weer deewee la nga am danga nga ko joxe bu loolu weesoo tamit noo ngi sant bu baax tamit nga xam ne nii mooy directeur de l'emploi nag Pape Modou Fall ndax ba mu ko xamee ba léegi moom tamit mi ngi ciy dugal loxoom weer wi def na ci loxoom bu baax a baax waaw te moom ñëpp xam ne mooy social day dem sax moom ci hôpital yi moom képp di jàppale malade waaye ba mu déggee association beeg léegi Pape Modou Fall mi ngi chaque weer mi ngi yóbbante lu am solo di ko jox malade fii kon moom tamit doo koy ñaanal fu mu bëgg a àggale njaarim yàlla na fa àgg di sant tamit ki xam ni mooy sunu journaliste bii du Gora Diallo mi yor Touba Allemagne TV télé bii télé diaspora bi la mu te Touba Allemagne TV Gora Diallo mi jiite ko ban commencé ba léegi moom tamit Samb Touba la jóge dama ko wax fi mu ne nii nelaw fajar teel Touba la jóge ñëw nda nda ndax liggéey bi su doon nekk ba Dakar yi suñ ko woyee day ñëw kon Gora yow tamit noo ngi sant bu baax yow miy jël image yi